arbitre baa ngay wax ak ñoom Diop moo taxaw noonu def ngeebul vaccine Las Palmas moo def ngeebul noir li ñu ngi lay tool def toobu dib waaw waaw tey di la lan le 30 waaw waaw décembre 2022 teer leen eh si at mu bees mi jëm yàlla si yàlla def jàmm waay eh Ibra na naa la xamal leen ba fu muy mujj am ordinateur lay doon ndax daa bëree bëgg bëre jàpp loxo xool ko day téye sa loxo bi yéen a loxo Las Palmas ba bi rob yi gis nga nu ma la tuddee mbin jàpp barke Rasulullah day jàpp wala wala wala indi na ñu mu ko jàpp day jàpp mu am jàpp la si ay loxo lay moom wala sere mele buy samonda yi ale baa mooy rey eh la salmance Thank bye now. façon mbër bu ne ngay gis ci xale yi muy Fapal yaa sey. mbër bu fi duggoon tey dugg ci ci diggante bi dama la faale. Doudou Sané doon tànk bu leen dem côté boobu loolu neen côté boobu seen projecteur dafay saboté sama téléphone bi mën ta affronté projecteur ah cinquante kilo ak vingt-cinq kilo lañ leen tegal muy yaay fii la mbër ji I at Kikaram days and few o'clock I think I see the Seta La Salmas Kumasi. I see the Rick, the same car in Kumasi Jerusalem. Seta Nina Raukatu. We I Jesus Ajunan Tang. All the Ajunan Lenwoi. Oh, I did a clan by reporters. bu leen dem côté boobu bu leen demee côté boobu lu baax ci man combat boo xam ne dañ kaa tirage mais nag seulement combat bi yëpp daa daan Ibrahima Diop da ngaa bëgg combat bu yàgg na yow ba may sof li bi door nii. Eh, ko buy dox di ñëw da ngay gis Ousmane Sass Niakhar Ousmane Senghor bu Sass Niakhar leen ñu mi-temps na mi ñu naan ndox jox leen ku nekk ndox naan leen waaye waaw waaw sifflé waat nañ muy xoolaat bi nee na ko dóor amul <laughs> Mass Ibra Diop Fadiouth Joal ma ne day kenn day dem Siri Saako yaay ji naan ko foo ko jëlee mu naan ko dama doon bëree woo eh dañuy feetu ma ne ko poowum góor la ndeysaan ku gis li nga xam ne c'est c'est le ku gis li nga xam ne nee la culture bi moom la ñu am autorité yi suñu bëggee dajale jàmm yàlla yi li la ñuy organiser waaw waaw ay eh, rëbb na oh, ko takk na ko eh mboot ma luy am wiyaay waaw waaw xale yaa ngi bëri final baa ngi saf ah oh, danga la ko sees eh, eh eh waaw waaw eh, eh. combat baa ngi neex wiyaay papa yaa say bi benn bàyyi li def bu mu yàq sama bi bu mu yàq si li ma ne wuy wuy wuy jey lam njop bele lum la moo naa la diya wo diri na ko diri na Ambulance bu Fadiouth mi daa mel dara la de Ibra Diop mu Joal mi te bëre loxo de jël ko jël ko rek wala am nga ci seen la jël ko loxo yi ni mu koy boy yi dañoo fair play de saa waay ne signalé na ne sama loxo bi mu jox ko loxo ndeysaan final bi miti na de kenn daanul ñu tirage ko wala ah Lamine Lamine ñu tirage ko wala ñu bàyyi ñu bëri waaye yow ma ne waaw waaw final ba fi nañ ko fala la mbay ak di yëkkatee ama frère jigéen we loola mbegaan ma ne ndiigee yaay artiste mooy aw ndeysaan borom le premier janvier naan fi à toi doom yaay favarindo kimo ñëwé eh fakk na ko eh la ilaha illallah xale yi dañuy kot fii de waay lo salmas Ibra Diop waaw waaw jël na na daa bëgg tànk la ilaha illallah uy yaay waa bat eh wayu da ko doon Boy Diop war na ko ndombo classement la la seulement sa ci génnam déet la seulement sa hee saako ceeb di hee waaw hee hee wooy Las Palmas oh Las Palmas lu mu a Las Palmas lu mu bëgg a tànte arbitre hee eh, arbitre Las Palmas lu mu Las Palmas bañ na Las Palmas hee eh, Las Palmas eh. Wah, Woi, wih ay. la la la

way las eh las las la las eh las eh, da am doole las da doole eh, eh.